ci anam gi nga koy jàngate muy angle bi nga xam ne ci nga koy xool euh, muy xew-xew boo xam ne dafa bett ñu bari ndax euh, Afrique ni nga xam ne noonu la bindoo lee moom kenn jàpp ko woon wala ñu bari boog jàppuñ ko woon am na ay benn benn xëy na yu ko gisee woon noonu muy loo xam ne nag Euh, aw askan moom bu fekkee ne xam nañ seen bopp ginnaaw lu waa yor lu nekk ci askan wi bépp sañ-sañ bépp ba tànk boo fi yor ñoo la ko jox ñoom ñi la ko jox te bu dee kenn ko yor ay junni junni ñu ko mën a yor ngi fi suñ xoolee ba jàngat xam ne biñ la koy jox liñ la ko joxe woon ak la nga digge woon gis nañ ne jaaroo fa c'est normal ñu wane ne ni ngay doxale du ni boo insister nag ne doo fi jógee te doo soppi ni nga ko doon doxe yaakaar naa lii ful la mooy ñoom ñi la ko joxoon ñu nangu ko kon loolu rek la xel mën a nangu nii mu amee it ci anam goo xam ne daanaka gu xaw a jàmme lay doon nga xam ne ay wi bariwut wala bareegut bokk su fekkente ne amul ñu ne ci ginnaaw ñoo xam ne dañoo gis ne armée bi ko jël euh, arrangé wu leen su boobaa am na ñoo xam ne ci biir saxar la seeni intérêt nekk ci biir euh, aw ay la seeni intérêt nekk ñooñu su fekkee gis nañ ne mën nañoo fexe ba loolu du am euh, danañ ko def ala kulli xaal liñ jàpp mooy lii moo war a wéy armée bi yore biñ ko yore wër te yàgg war nañoo xool delloowaat ko civil yi ci anam goo xam ne euh, euh, anam gu gu tege ci démocratie lay doon euh, li nga ci wax itam nag ne maanaam par rapport ak yeneen réewi Afrique yi rawatina Sénégal ndax xalaat nga ne mën na fee am wala yooyu loolu jàpp ma ko jàpp ma ne dana dana am Sénégal ndax li koy firndeel ci sama jàpp mooy Sénégal bokkut ak Mali ndax ñoom. Eh, ki def taxawaay bu mag boobu ab imaam la te ay eh, mouvement islamique ak ay imaam ak as ustaas la ko àndal eh, population bi déggal leen ndax dañoo xam fi population bi di déggee te ñu ànd kook ñoom bokk ak ñoom benn yëg-yëg koo koo woo ci loo bokk ak moom yëg-yëg rek dana la ca wuy si amma su fekkee fii la nag pouvoir bi nga xam ne nii imaam yooyu am nañ ko ci Mali ñun suñuy imaam amuñu pouvoir boobu fii ci Sénégal ndax nit ñi ñi ñu gën a déggal mooy tariqa yi lañ gën a déggal maam kilifay diine yi lañ gën a déggal mooy bu ñu ne kilifay diine eh, ñu ngi ci jublu tariqa yi donte imaam yeeg ñëpp ay kilifay diine lañ ndax diine lañu fi nekkal waaye comme eh, turuq suufiye yi fi ne ñoom politique guñ eh, dañoo toog fi ñu toog génn seen loxo ci politique bi ak ni ñuy doxale réew mi di xool seen yeneen li ci gën a bari nag seen yeneen yeneen maslaa seen i intérêt yoo xam ne euh, li nga xam ne mooy déranger réew mi ñu baree bari luñ ci laal duñ ci am soxla bu fekkente ne fi ñu nekk kenn laalu ko rek euh, duñ ci am soxla te loolu itam nag jëmut fenn moo tax ma jàpp ne loolu moom jëm si wut fii ndax euh, ustaas yi ak imaam yi amuñ pouvoir bi nga xam ne moom la ustaas yi am ci Mali ak imaam yi. te fii ñi nga xam ne ñoo fi am pouvoir tey mën naa ne benn kilifa diine ci tariqa yi rek su taxawoon taxawaayu imam boobu kon la am fee dana fi am mais bokkuñu ñu nekk loolu mooy li ma la ci li ma ciy wax ci jàngat beneen bi ci des mooy bu dee opposition bi moom taxut ñuy wax opposition bi man nga ne wax dëgg yàlla booy xool benn par benn euh, ku réew mi jaral lenn li daanaka kuy def sa démarche sax yaa ngi xoolaale